ak verre yi. waaw force porte bi tubaab bi nag article 749 lay utiliser. waaw ngir ñu fay ko alalam maamu jàpp booy. te loolu yëpp waali moo ko war attan ñu xajatul ci nañ booloo tabax saal jox ko mu fay way. mais waali yu bari nag. mais non man bala may bala may ñëw ci waali deux yi mais dañu gis waali nekk biir Italie. mel ni ku nekk biir Pikine. waaw non moom laa lay wax. xaw ma nax dégg nga li ma la bëgg a wax. waaw moom laa lay moom bandi la. waaw xam nga waali wax naa leen moo kaana bu mag a mag la itam la màggee fii la yaroo met sob doomu ndey dafa ci doon ànd di dox ca Milan di dem ci McDonald bi mhm. mu jàkkaarloog naar yi yenn gars yi ni taxawal mais moom am lu ma def ñu àbb vestam sol mhm. boobu mu ngi tax goldi mhm. ni damay bañ a xeex hmm. lii la Waly wax njaab njaabaan ñu ñëw ba yegg si Gambien bi ne ko Waly hmm. waaye jëndil veste bi nga takk say seen fii kenn du la laal mu ne dégg nga ma te Waly ba muy wax loolu yegg seeguñu la hmm. xam na àddina bandi taxaw taxawaayu na photo ama seen loolu la wax léegi ci vidéo ba ma ko dugalee mu ne moo mook Waly Seck bokk benn yaay Waly fii la màggee fii la yaroo fii la dee moo tax mi ne ma au oh, met ne naa mi ne ma départal daw gaaw open presse bi tey la jëlal avion démb si guddi laa ko jël wàcc Ndakaaru tey ci fajar mu yëkkati ñaari million jox ma ni ma demal amaa Baldé du ay caaxaan 2009 ngeen commencé ànd man 2009 nga ànd ak man hmm. boobu ak léegi boo ko boolee ëpp na 15 ans mañ hmm. na tax ma sama teewaay fii ma yëngu ah boo gisee léegi dafa xulli maa ngi Italie le 30 Pikine danañ gis lu xeere le 30 waaw mooy gis lu wow koŋ gis lu xeere xeere xeere barki sëñ bi naan konkorong xeere koy toj waaw ko koko jaasi rek la ragal Ama Baldé jaasi la bu ñëwee day génne lépp luy ñam ci biir Gris Bordeaux ak ndox ma non man nañ la bàyyi waay. million yi nii dama xooli Ama Baldé seere combat bi ñëw ñu yekkat. maa la ko king of Medshop kenn du ko soppi. jërëjëf jërëjëf. lu wow koom gi noonu El Pacho kenn du ko pàccoo. Medshop kenn mënu ko soppi. jamono yi Abdoulaye Wade soppi woowu ak bii du benn lii lu wow kong la. the king yaay the king of the karaj mu topp. konkoron xeer ko topp. eh baax na oh. mais lu xeere lu wow. kong El Pacho waaw. coole dans Paris. waaw Italie xajatoo fa. xajatu fa Paris xajatoo fa. Buenos Aires xajatu fa. nañ ko yóbbu Wembale. nañ ko yóbbu Wembale. ba yàlla ko jàpp ba jaan ba. the king of the gaana bu mag a mag nga du ay jaxal nañ waxtaan ak africain yi. ñu tabaxal la stade Afrique. nga dem jouer bu mag a mag nga du ay jaxal. c'est un incompris. jërëjëf. c'est un incompris. incontrôlable. waaw sabab noonu. Oumar <laughs> ko ko ñaanal sénégalais nañ ko ñaanal teg ko loxo gën ko may jàmm. mais li ngeen def la la Milano Milano loolu la parce que foofu day gën a métti mais Milan Milan yi dañoo ñëw alors waa Brescia waa Lecco waa Vicenza waa Bergamo waa Paris waa Angleterre ñëpp a ñëw biir Milan te noonu lañ ko nar a defee tournée tournée Wally Seck yëpp dañuy def suba ginnaaw suba ñu dem Allemagne Wally Seck dafa. mais Wally dafa mel ni kenn du rek ki tëggoon Milan bi Baye Fall la dafa doon xol bu rafet la kon ñaari xol yi rafet bu yàlla nangoo seen ñaan loolu ji day ëpp waale Ada Bey waaw Ada Bey moom ak Wally Seck seen xol dafa dafa dafa nangoo ba ba tey éclaté tax na su leen yàlla fayee seen xol dafay métti yàlla loolu yàlla defal jàmm waaw waaw waaw dañuy sëkk